lu presse di Maïmouna Ndour Faye liw voilà mhm. bu ñuy beneen dem bu bi paree beneen ñëw voilà en lambo ku nekk li coow fu nekk wax ki jógee fu nekk ay nit di mettitlu kenn du ko wax dañu war a lijjanti lijjanti wuñ ko dañu war a wax duñ ko wax parce que tout simplement ku si nekk sa bopp ngay soraale ci sa ci sa vie ak say àndandoo mhm. ak say dëkkandoo li si sa yoon nekku ci. waa ji na xam ni xaalisu baat boobu gars yi lekk nañ ko. lekk nañ ko de li boo gisee mbiri di yéex ni ñële nee nañu kenn fayu leen moo tax mu ñu liggéey c'est parce que il n'y a plus d'argent parce que séddoo nañ ko. léegi dañuy jéem a seet nu ñuy ñuy lu ñuy lijjantee taxale pour jéem a am lu ñuy gérer nax leen en attendant genn wàllu yëpp genn wàllu euh, impact yëpp euh, dee nañu borom kër yi dee nañu seen njaboot yi tas nañu ñu ne kenn du ko wax waaw non non la ñuy wax. ay front de la démocratie front de défense de ceci machin Khalifa Sall euh, Barthélémy Diaz yooyu yooyu yooyu la ñuy wax yooyu la ñu xam. parce que yooyu mooy nëbb na saxal xelu sénégalais yi alors que dañu waroon dugg dugg ci ci ci ñii lan la ñuy def ki toog fi lan la ñuy def moom ak ñu seen i bàyyi yi dee noonu. Hmm. comment ils font. cim doo leen sax ruus. faalewuma leen nag man compté wu ma leen la yaa ngi ci actualité mais. waaw ngi ci actualité waaye lii nii. Euh, kenn mënu koo bañ a wax. lii waroon na continuer di wax parce que. parce que yii nii dafa dafa rafetul dafa ñaaw. bien sûr parce que parce que c'est fini ah seen njaboot yi tas am yoo xam ne seen njaboot tas nañu parce que dee nañ. Mhm. waaw xaalis bi ñu leen joxoon loué nañ ko jël loué def nañ ko luwaas ba mu jeex même boo leen joxoon kër gi sax duñ ko mën duñ sax mën a jëriñoo ce serait eh bien voilà ngeen tooñ leen yéen nag ngeen dajale dóor seen i dóor yor seen i ay kër ak seen i eh, ak seen oto yu baax di yóbbu seeni doom yi bitim réew. c'est ça qui est injuste lii mooy Sénégal ce n'est pas une question de présidence de la République c'est pas une question d'Assemblée nationale question de jikko la ak mbaax. jóg rek séddale séddale rek pour nit ñi kontaan pour nit ñi am lu baax di faju di lekk ba suur di naan ba màndi di leen defal ay bagages ñuy kontaan nit ñi di béggee yooyu buggu leen ko. san ne vous dérange pas parce que de toute façon ñooñu doo leen gis lu bari parce que ñu ngi beneen côté bi ñoom ña nga ca àll ba ay ay bambiloox ay machin yéen yaa nga nekk laqatu ci seen ruq boobu noonu ñu defar leen seen tali yi lépp moo tax seen tali yi ngeen defar ni ay corniche yi bàyyi leen ko ngeen defar leen tali route yu mag yi ci yeneen côté yi parce que fii rek du Sénégal parce que de toute façon fii séddoo ngeen ko ba pare yéen ñépp buur bu ñëwee ngeen tabax seen kër yi tali boobu yëpp léegi euh, euh, géejewaay ba ngeen ngeen corniche kii kii Tilaawoo yi ngeen jël. suuf Sénégal bi di tas rek di ko séddoo rek di dóori seen i dóor. kenn du am maa ngi victime laa lekk nañ sama suuf. kenn du am ah yow lekk nañ sa suuf. ak ñeneen ak ñeneen ñu ma xam ba léegi. ci tolon compte. te benn kenn du ko wax yéen ñi nekk ay milliardaires inspecteur d'impôt yeeg. ay millions ba léegi yooyu eh, inspecteur des impôts nekk milliardaire ngeen ne kenn du leen ko laaj. boo leen neexee ngeen nekk président de la république ngeen nekk ay candidat ngeen effectivement vous avez euh, engrangé beaucoup trop d'argent donc mun ngeen continuer waat di diriger gars yi ak seen xaalis ak seen weccet c'est comme ça que vous vivez yoo xam ne dem naa ba ne kon teew ma leen dem naa ba ne man maa ko wax du ma amati carte électeur bëggatuma ko parce que du ma voté benn politicien parce que seen bopp rek man bokk naa ñoo xamante ne amoon nañ idéologie man ruus naa man ruus naa doomu aadama parce que boo demee man ma yor ba nekk victime seen yi euh, Aliou moom laay kii damay conforté korob sa idée parce que boo demee ba nekk victime ci yenn si suuf danga nga dem ba naan man dootuma amati carte électeur bay voter benn politicien parce que gëwuma kenn ku ñëw sa bopp nga fi nekkal parce que bëri na bëri na fi ay morom ñoo xam ne ñu ngi laaj laaj seen droit dañ leen ko war a jox ñoo ko moom te joxuñu leen ko da ngay continuer sa dund rek jàpp ne xappi nii mais dañoo lekk sax suuf lañ lekk lekk sa ay millions toog ONG lan la ñuy dundee am na seen rapport financier yi man ONG ñoo ma metti ñu nekk dañuy wax ñu naan dañu leen taxaw di nekk leen teg ay une ci journaux en prime time ces lan lañ lay wax qu'est-ce qu'ils te de quoi ils vive quels sont leurs rapports est-ce que yaa ngi koy contrôler di xool ñaata la ñu jot ak fu ñu jotee ak ñan ñoo leen jox vous croyez qu'on ne sait pas man ci àdduna laa dëkk man man àdduna laa dëkk man xam naa lu bari ci àdduna bi am naa ay nit ci àdduna bi dañ lay tegal lu leer nañ wax la say gars yi li ñuy dundee avec ironie yaa ngi ironiser sax des fois ah mais arrête-toi. Ouais, xam naa vous, ah, vous allez vous emporter là vous allez vous emporter donc euh, xam naa ñëw ci suite actualité bi rek ak agression bi nga xamante ne dal na suñu naataango di Maimouna Ndour Faye. voilà une dame boo xam ne dafay euh, góorgóorlu amul sax est-ce que ñeent fukki atam mën na wala ci la yem. Mhm. bien sûr. di ñafe nekk la seule femme patronne de presse ah il faut oser hein, pour être patronne de presse dans ce pays. il faut nga ñemee dëgg doon jàmbaat jiite ay góor di leen fay ak weer lu mu jege di ko reyante pour di leen dund ay ay boroom kër di def li nga mën sa par rapport ak yow sa sa sa sa sa ligne éditoriale di xool ni ngay gisee ci àdduna ni ngay gisee journalisme di di di di invité say nit ñépp xam ne képp ku mu mës a woo invité ko mayula dara amul xaj ak seen ñu menacé ko di yi menacé di koy menacé ba mettre à exécution seeni mbir anamu jam paaka jam xool nit ba mu neex la nga jël paaka jam ko nit nit rek laa waxuma sax sa morom góor sax jam xool nit rek man su ma doon dóor nit sax ba mu tëdd nii ma def erreur man rus naa jël paaka di ko ko jam deret di tuuru ma jox jox ndax tranquille dem tëdd nelaw munu nekk les gens ay sauvages lañu c'est des mauvais booy gisee deret bi nu muy gisee noonu nga war a xam ni rek mbir mi xamatuma lan la may nuru. bu gisee ñuy remettre en cause loolu sax day day def. ay kuy ñëw si man na nga na nga kii dégg na nga bett de bul wax ak man parce que boo ñëwee mooy. c'est fini bett ma rek bett ma nag quoi ragalu ma dee samay doom màgg nañu amul problème ah, waaye nag ah, bett ma bett ma sëy nag ma bett. bu bu ñëw sama kanam ñëwul sama kanam nga xool. doo ko defati. jëf bu leen bu leen ñëwal rek ne ma ne ma ne ma maa ngi yow nangam taanal yow ñëwal nga def ko. bu dee yow na ma nangam taan. bu ma bett nag ba ma bettee garaawul. bu leen may stratégie parce que. bu si si si si si non parce que ndaw si loolu lañ ko def. xale bu jigéen. naan ko rek bu ñu jekkoo kenn loolu lañ koy def. c'est moche c'est dégueulasse parce que tout simplement àndul ak ñoom. àndul ak ñoom. ñan àndul ak ñoom. àndul ak ñoom li muy ah ñi ko rey. astafurlah. ba si ñi ko bëggoon rey. ànd ñoo ko bëggoon rey Aliou Sow affaire baa ngi ci enquête ba. mais non dama ne. mais na ngeen def dama wax ni dafa am ko ko mais dama ne. Ah, ñi ko rey ànd ñoo ak moom. c'est-à-dire ku ak moom du ko rey. donc rek mun nga bañ a d'accord ak moom waaye bu tolloo ba ci nga koy njëkk di ko rey ndaw soosu lan la def lu ñaaw. mais agresseur est-ce que xam na mais est-ce que war nañ avancer si te tey boobu. dama xamuñu xamuñu non ñun leen rek la ñu mën a def man personnellement leen rek laa mën a def. man waxuma diw la wala diw la wala diw la. gis naa daal nii ndaw si gis nga nay leer. ndaw si dañ ko yàgg di menacer. amul luñ ko yàqul. dëgg la comme ni ñuy menacer ñeneen ñi. loolu la wax kii wax bu leen dugal ci wax yi wax leer la doo ko ma ne ki ko mais ki ne de toute façon ki ko jàmbaaka moom da ko compte xaaral may ma wala ki ko wala ki ko yónni daf ko compte may ma c'est évident te leen nag la ko moo compté ndaw si bu woon journaliste di wax li muy wax Cheikh Diagne Gomis kenn du ko rey kenn du ko tentation bu rey c'est impossible en tout cas am na ñoo xam ne kenn du leen attaqué fii ci réew mi mu mënti jógee ak parce que kenn menacé wu leen c'est condamnable à de c'est dégueulasse et je vis des jours qui me font mal xaw ma Maïmouna Ndour Faye xaw ma ko mosuma ko jox loxo mais dafa am yu ma bëggul man ci sama àdduna dafa am yu ma xamul mënu ma ko nangu parce que tout simplement ndaw si àndul ak ñoom nga dégg ay nit naan dañ ko waroon rendi ki ko ki ko ki ko kii daf ko waroon yeggali. kenn moo wax loolu. waaw maa ko dégg nit jow taxaw waxaat ne ki ki ki def lii lu tax yeggaliw ko waaw kooku yaa ngi imaginer loolu vous faites quoi là vous faites quoi de ça comment on peut avoir un cœur comme ça c'est un cœur comme ça vous. xam nga à travers ça à travers ça li ma ci jàpp mooy lenn ñun ñëpp on est gis nga li ko dal ñun ñëpp on est menacé on est tellement parce que léegi dëkk bi lenn moo fi am boo waxee ñi nga xam ne d'accord ñu ak yow ñu ngi lay ut bëgg laa indil bëgg laa faat nañ waxante dëgg kon nag lii ñun ñoo war a jóg ñun ñoo war a jóg dégg nga parce que au est dans un pays comme dañ ne pays démocratique la parce que lii am lii lii dafa ñaaw sax man xaw ma man lijjantiwuma lii xoolal lijjantiwuma lee xam nga man lu ma lijjanti xam nga lu ma lijjanti mooy que mooy que on est en danger xam nga may mën a yàlla euh, xam nga waa ma ne ñun ñii on est en danger parce que euh, c'est que da koy dégg. c'est que c'est uy ma xoolal mooy li ma wax koy dégg ci waxu nit ñi. Mhm. da dégg koo xam ne ni muy waxee tu vois da ngay gis haine bi am ci moom haine bi da ngay de dangay ngay tu sens. sentir waaw moom ngay sentir mhm. da nga xam ne kii. haine la kii haine lay waxee kii haine. muy waxee yow ni di wax ci. Mhm. et surtout tout ça c'est la politique. c'est ça ñu ngi c'est la politique au Sénégal. Fatima politique bi ngir yàlla ak yonante ba. d'accord xoolal non. man Côte d'Ivoire laa jugee ñoom dañoo politique pare ci teg fale ñu ngay liggéey dëkk baa ngay normal dëkk baa ngi normal Côte d'Ivoire au de boo duggee Abidjan wala nga dem Yamoussoukro wala nga dem Bouaké da ngay xool lépp le pays est en chantier ñi ñu ñaa ngi liggéey bu élection ñëwee ñoom ñu nekk bu ñu paree pare nañ ci nekkaat ci liggéey waaye fii soixante cinq sur 65. chaque jour ñu ngay politique. mais est-ce que ñun gis ñun presse bi. ñoo yombalal ñun ñoo yombalal jar naa posé. ah Aliou. est-ce que ñun gis ñun presse bi. non li nga ñoo yombalal gars yi chaque jour. ak suñu kii au lieu de parler des urgences sociales. des urgences sociales. chaque jour du matin au soir. loolu la ñuy waxee débat yi politique la yéen ñi kii est-ce que du ñun ñoon ñoot yi alors que y a des urgences yu ñu war a débattre tout à fait euh, gannaaw bu ma nuyoo Fatou ziar la bu baax a baax nuyu mboolem internet ak téléspectateurs yi ñu may euh, mbiru Maimouna Ndour Faye mhm. képp ko rafetlu lu ko dal mhm. loolu soxor laa ko mën a duppee parce que mhm. nag nit la nit même bu fekkee sa sa noon la loo ko bañ bañ bañ loo ko jéppi jéppi jéppi doo yéene ay dami paaka ay mbir yoo xam ne yu yu doy waar la c'est vraiment à déplorer parce que ñi naan yéene ko dañ ko waroon jekkale yooyu wax ju ñaaw la parce que en tant que jullit mhm. loolu waroo ko yéene sa morom mhm. lii aussi dafa war a interpeller les autorités parce que nag gis nga mbirum agression ak defante lu ñaaw lu yàgg la ci réew mi mhm. lu ñuy gis la et tout temps y a des gens yoo xam ne ay victimes lañu ci ñu ngi leen jàpp di leen xoqatal di leen def lu metti ci mbedd bi ñu ne patt toog bosu may a ndóor moo nekk bu mujjee beneen c'est la énième fois ñuy gis genre yu mel nii. Mhm. parce que may mën a ci ñun la bokk. Euh, journaliste la moo ko tax mu gën a fës. Mhm. Mhm. mais ay néew doole ñu kenn xamul ñoo xam ne bu ñu du ñu reer def nañ leen ba tey ko booleeg pat gis nga li bu li tole bi a bi am. su ko ñeneen bu ñu bokkul ci presse bi doon am affaire bi dina jëm kanam. affaire bi nag kenn mënul wax. diw mais li ñu bokk ci presse bi wax nga ko Fatima. loolu moo tax mu am euh, li nga xamante réforme la envergure bi mu toll voilà mais affaire Mariama Sagna ñëpp ko ñëpp ko méttitlu affaire Mariama Sagna ñu dañ ko violé def ko ko ñëpp la metti mais peut ko noonu ba tey mujjul fedd Mariama Sagna moo ko moom sax ak yeneen ak xam nga tey loolu benn dàmb tuddoon Fama ñu décapité ko woon benn plage encore ya tànk tànk bi ñu mujjee fort temps jamono yële passé côté Mbour xaw ma ngeexoor dañu lijjanti tànku kan la ba tey patt la ñuy def ci violence yi nga xam ne ñu ngi koy demee ko ci ay nit. ak Malika bi Ibrahima Ibrahima Sey. moom ñu bëri ñu ngi leen leen rey di leen def naka sudul noonu ñu booleeg patt ak organiser toog dëgg la Maimouna mi ngi ci presse bi. Mhm. am na tur. Mhm. liggéey na ba yegg foo xam ne tey jii ñëpp xam nañ ko. Mhm. moo waral bosam demee nii nañu. te dañ ko ñaawlu avant tout mais nañu yemale atte gi ñuy atte ñi nga xam ne ñu ngi leen di kii parce que yaram yaram la nit nit la te y a des choses yoo xam ne c'est pas bien en tant que jigéen mënoo ko tiim di ko jàmm wala di def yoo xam ne naka sudul noonu mm-hmm. nit ñu taxawee ci dossier Maimouna parce que mbir maa ngi ci enquête mm-hmm. xamaguñu fan la mbir mi mujj ñii génn nag naan diw la ak diw la lu ñaaw la parce que gisul nit dangay bàyyi ñeme yàlla xaaral rek xaaral voilà kenn warul accuser parce que ñu ngi gis ay ay mag yoo xam ne mm-hmm. ñenn ci ay leader ay mag wala ñeneen ak ñeneen ci wax voilà parce que gis nga paaka mburu boobu mën na rey nit lu dul paaka puso sax mën na rey nit asama ak leneen mm-hmm. donc c'est c'est vraiment à déplorer di ko ñaanal yàlla yëkkati ko bu baax a baax ci fi mu ne waaye nag nañu gën a sëgg ci dossier yi nga xam ne mooy ñiy dundu lu metti parce que nag Sénégal bëri na ñu fi terroriser ñoo xam ne seen bopp sax nekkatu fi parce que traumatisme la ñu am ci li nga xam ne ñu ngi koy dund nañu ñëw yemale lépp euh, def li ñuy def di sàkk aussi ci kilifa yi ñu gaaw ci mbiru Maymuna bi si euh, bu ko defee polémique yi ci am yëpp coow yi ci am mu mën a wàññeeku ñu jàll ci leneen. Mm. d'accord voilà am na solo Fatima Kidé ñu bàyyi la nga poursuivre euh, ce point commencé woon aborder. oui non mais bon c'est parce que on sait très bien que ndaw si idéem ay xalaatam. certainement parce que euh, euh, on ne fu ñu toll ni lu ñu gis rek la ñu mën a wax. Mm-hmm. Euh, elle a été n fois menacée parce que tout simplement nee ñu li muy wax neexul voilà c'est tout. Mm-hmm. elle été agressée léegi nag il faut trouver euh, des solutions pour ñu xam ñan la te loolu yoon yoon moo koy def c'est une évidence waaye aussi war nañ ko mettitlu parce que mm-hmm. boo xoolee mbir mi man ci foofu laay cantonné wu ndaw si foofu loonu Mariama Sagna waxoon naa ci c'est évident si la ñu xam ne ay charretiers ñoo ko violé rey ko ay charretiers voilà. ils ont été poursuivis. mais ñu ngi leen téye jàpp nañ leen ba téye leen jàpp nañ leen. pour kaw Mariama Sagna bi pour mu leer ñi leen ñi ko reyoon. Hmm. violé ko avant jàpp nañ leen ay charretiers lañu. procureur bi moo ko wax ci conférence danañ ngeen xool kayit yi. loolu leer na léegi nag il faut ngeen gaaw ci ñooñu de façon ñooñu jàpp nañ leen c'est bon waaw mais kii nii nañ ko xam nañu xam ak ñeneen ñoo xam ne agressé lañ leen ci réew mi. pour mu arrêter la peur doit changer de camp. non violence moo war a ak fu mu. waaw euh, dafa war moo tax nag yal na la yàlla sàmm. parce que man naw naa la ndax jigéen nga man jigéen moom ma defar moo tax bu ma gisee jigéen bu man jigéen buy kii am kii dama lay bëgg. la seule femme patronne de presse. xam nga luy diriger une société de presse. il faut l'assumer dama la laaj patron Walfadjri lan lay dund. waaw c'est la seule femme patronne de presse ici euh, au euh, est-ce que waruñu xoolaat tamit la délivrance des grâces présidentielles parce que c'est constaté ah à chaque fois que bu amee grâce rek période boobu mhm. recrudescence insécurité bi ñi mm. bàyyi ñan lañ euh, parce que dafa mel ni affaire boobu problème la parce que problème la guddi chaque fois heure boobu ñu bàyyi du ñu xam ñan lañ bàyyi ak yan condition lañ leen bàyyee dañuy gis ne insécurité bi day gën a law te te doguma la xam nga prisonnier la la ñuy wax ñi ñi génn dañuy defaat ñëwaat fekkaat si waat ci biir hmm. xam nga man lu ma gis teew ñu ñëpp fii hmm. boo ci gisaat chaque jour on reçoit des menaces personne n'est à l'abri deux fois ci sa portable loolu mooy mbir bi te loolu amu fi woon da ngay mu taxaw fële wax la wax boo xam ne hmm. xam ne kii kii boo leen wéetoon mu moom mu jam la waaw chaque jour nous on reçoit des menaces chaque jour chaque jour on reçoit des menaces tey après du mujj fenn kooku wax du mujj fenn. du am benn suivi. kooku kooku di menacer kooku def ay menaces boo leen demee taxaw kii ba way na nga boo na nga may mu jeex c'est ça aujourd'hui le problème Maïmouna Ndour mi ci menace la commencé elle a dit. mooy yow je reçois des menaces. combien de fois xoolal mu ngi alerté di wax di wax di wax. ba kii ñëw tey jii ñu jam ko ba mais mais kon kon c'est ça aujourd'hui le problème c'est xoolal ci waxin bi la ci doxalin bi la on a un problème est-ce que vous avez entendu li Barthélémy Dias wax bërki dem yàgg de dégg ngeen ko dem leen nga seet li Barthélémy Dias wax dëgg ñoom seen xarit la ngeen seen xarit la woon dem leen li mu wax xaritu ñan ñoom ñoo doon ànd ñoom ñan waaw ñoom waaye ñoom ci seen biir. li may wax leer na tu le sais très bien bu dee journaliste nga xam nga li xew Barthe Ndiaye ñoo doon ay xaritam. te ñu diwaat loolu yeneen teewuñu barki dem yëguloo loolu yow. Ah. on passe à amnistie. voilà euh, bi euh, tamit projet de loi bi nga xamante ne déposé nañ ko tey assemblée nationale euh, li nga xamante ne mooy responsabilité assemblée nationale nekk na lu engagé. ci li Théodore Semedo doon wax léegi y' a un projet là yegg na aéroport euh, fële ma naan aéroport euh, machin euh, assemblée nationale ce matin waaw léegi nag dafa nar a jàll voilà léegi am na ñoo xam ne jugé guñ leen léegi lépp la ñuy taxañ normalement à moins que assemblée nationale assumer député assumer seen responsabilité mais dafa nañ ko nar a taxañ jàllale ko léegi ñu génne ñëpp même ñi ñuy jugé wul leen di génne. ñi ñuy rey seen doom tamit perte. waaw ñi ñuy rey bu ñu bu ñu tënkee affaire bi. waaw bu dëxëñ ko. waaw eh bien vous allez voir. ñi di ñu perte. Eh bien après euh, on fait circuler il y a rien à on fait comme de rien n'était. tout va bien. léegi léegi léegi mais kan moo def def loolu. waa laaj euh, ah, voilà ak ay ak ay nit voilà. ak ah, voilà léegi nag xam nga il faut dire on va ce que tu vas faire. vous êtes président de la République faites ce que vous voulez c'est votre responsabilité. mais moi ne suis pas d'accord avec vous. parce que ah, plus on avance man au départ xam nga Cheikh Diagne des fois dama naan xëy na sax un président de la République mun nga def loo xam ne xëy na bëgguloo ko waaye sa responsabilité mooy tax nga def ko waaye man ñun fi ñu tollu nii ak situation réew mi ñu toll nii bu balaa ñu ko def sax mais nañu jugé gars yi ba pare ñoo xam kan moo def lan. mu leer parce que yéen dafa am yoo xam ne da ngeen ñu ko leeral. ñi ngeen jàpp ngeen ne leen force occulte. ñooñu boo da nga leen nar a boole ci affaire bi. yaa leen tooñ. mais man ku ma wax ne yéen kon li ngeen di wax dëgg la. mais est-ce na du dëgg. Aliou est-ce que waruñu def tamit enquête si ñiy dee. parce que ñiy dee famille dee ñoom ñu ngi toog. mais ñoom ñu teyale leen. rey seen kii. mais Cheikh euh, mais teew euh, les tenants et les aboutissants. mais teew bu ñu defee bu ñu defee bu ñu defee. waaw ah, amnistie bi enquête bi ngay wax ne mu dañ koy effacé dootul amati. mais am am na leneen Aliou Sow lu ñu waroon def enquête parce que euh, kii bateau gaal yi fi doon jógee di dem ci Barça Barça ñu ci bëri ñu ci ñu bëri tey am na ci ñoo xam ne ñu ngi doon jiiñ nguur gi naan ñoom ñoo ñoom ñoo jël euh, booy yi di leen jox ñi naan ñi ñu opposition bi ñoo leen jox pour booy yi génn dëkk bi di dem di liggéey loolu yëpp ba tey

projet de loi boo xam ne jël na pour yow pour yow bu ñu ko proposé yaakaar nga ñu bañ ko valider mais man dégguma la xanaa il faut que assemblée nationale assume ses responsabilités ngeen ne Macky lii duñ ko nangu. waaw mën nañu bokk parce que mën ngeen ko bañ koo voté non mais. waaw loolu du Sénégal nag eh, eh eh uy ma uy ma. ah on peut s'attendre à ça euh, ah. yow li nga bëgg. loolu amul Sénégal. xam nañu assemblée nationale yi. fii nu muy doxee ah, député yi. Ah, al toppel lañu eh, député yi ay al toppel lañu. voilà loolu la. cette fois ay toppel ay al toppel lañu. cette fois ci je pense moom cette fois ci. j'espère que du oh, oh, jàll ay al toppel lañu. non je man j'aimerais bien que tu tu n'aies pas man de loolu naa ba yàlla ah. naa ma uy ma man yàlla na li may wax ni yàlla bu mu doon dégg waaye man xam naa ne député yii ay al toppel lañu. ay xale yuy rey fetal. ay numéro 9 yor ay fetal ñoo xam ne leen rey. ñoo xam ne leen jàmpaaka ay yoo xam ne dañ leen jël. dóor leen alkaati bi man alkaati nga alkaati jigéen yooyu sant Diallo ana seen baay ca Medina lan la ñu nar a da ñoom ñoom ñoom loolu dina faas. a xale bi ñu ma Aliou Sow balaa Aliou Sow voilà boobu nag. moo ñëw gis nga haine boobu. mooy ni moom mooy ñëw ci nit. a fayu. parce que waa parce que fayantoo lay doon. Mm. ah man sama kii rey nañu sama nangam ñu ñëw xoolal nit kaa ngi nii nangam di dox nu ou bien kii kii mooy responsable waaye moom faale mu ngi nekk ci télé yi di wax. loolu en boobu mooy nekk si ñoom. en hmm. boobu. Hmm. en boobu loolu moo ah, tax ah, dëkk bi en ah. kese la. am na am na benn xale bu may bu may yàlla xale boo xam ne buntu Auchan unité 22. Hmm. foofu lañ ko jamee bal. ñu ko si charrette mu ngi tudd Fallou kooku. si xoolal kooku charrette kenn xamul. ba léegi waa kër gi nee nañ jotuñu autopsie. ba léegi ñoom nee na jotuñu. jot jotuñu résultat autopsie yi nee na jotuñu ko. ba léegi. tey xoolal tey xoolal li ci gën a garaaw ba léegi nii ñooñu te ñooñu pourtant de ci famille boobu am na mbokk bu jege ak benn haute autorité de la république fa laa yam am na keneen koo xam ne kabaa koo xam ne tamit dañ ko jël jàpp ko mhm. un un boo xam ne Issa Ba ñu jàpp ko parcelle hôtel la yore woon di ñafe kooku tamit mbokk autorité benn autorité république boobu léegi ñoom la bokkoon ah. dañ ko ñëw jim ko affaire u comme non c'est-à-dire que affaire yi vraiment mais mais amnistie sax mais bala ngeen amnistie mais ngeen ngeen ngeen juge gars sax ba ñu xam ku nekk lan nga def. lépp lépp yow bu la neexee yow Macky Sall. nga proposé loolu assemblée nationale def ci li ñu ci def pour assurer une certaine pression sociale. sax yéen man am na leneen loo xam dafa ma jaaxal. Ah. mais man ku ma dégg yéen li ngeen wax Ousmane Sonko dëgg la yéen li ngeen accusé Ousmane Sonko ak ñoom Bassirou Diomaye Faye ak gars yu bari ngeen téye leen ci kaso bi nii yéen lu mu wax ni yéen dëgg la parce que yéen boo leen effacé mbir mi maanaam léegi mooy kenn xamatul alors que man sa fait at ak genn wàll maa ngi xaar man ñu wax ma lan mooy dëgg bi parce que man dëgg laay ndax man compté wu ma leen. d'accord waa léegi yéen boo leen faasee lii yëpp ñun nan la def kon duñu xam ñun ba ilaa yow mi diin xam kan moo def dara mais si gis nga li ngeen teg ci ndoddu ñoom Ousmane Sonko. mais yéen dëgg la wala lu dëgg doon ñu ko wax ba pare sax après bu ñuy baal ñu baale. waaye yéen kon yéen yéen yéen man wallaahi su jàllee mooy li ngeen di wax dara du ci dëgg. merci beaucoup Aliou Sow nañ dem euh, de l'opposition peut-être demain rendente machin euh, euh, aujourd'hui je te dis chérie je t'aime le lendemain je te déteste et eh ben le surlendemain peut-être que je te reveux on va essayer de voir un petit peu <laughs> quel quel intérêt la ñu en commun et eh bien après on va s'organiser par rapport à l'autre parce que l'autre c'est le méchant et on se retrouve après mais même si on se regarde en chaîne de traiter nos intérêts, ah. nos intérêts sont les plus importants parce que le peuple n'en a rien à cirer. C'est le grand message, c'est le grand message dugg la voilà Aliou Sow ñu dem léegi ci rubrique people ànd ceeg Fatima. Fatima Kidé lu ñu indi tey ci people. mi ngoog euh, laataa ñuy door rek dañuy nuyuwaat euh, ñi ñuy teewlu maman Amina.